أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu borom ñu ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi noo ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu si waat nañu weneen yoon ci doon cappaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam ngeen ni mbooloo mu mbooloo lañ mu tedd mbooloo lañ mu barkeel moo xam ni borom bi subhaanahu wa taala gërëm na leen ci ay yoon yu bari ci téeram bu tedd laqad kaana fi xasasihim ibratun li ulil albaab dëgg dëgg doy na ci waxtaane saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu baax ñooñu ak yonent yàlla ya solo ta mu am mooy ñu xam ni toog di leen waxtaane kat ak waaru lay doon ak fàttaliku ci dugub yàlla lu jamono jaxasoo jaxasoo lu nit ñi soppeeku soppeeku lu man wasaaroo wasaaroo lu nit ñi sori njubal yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ca jamono jooje ñoo xam ni ñoom ña ngay jéem a roy ña nga xam ni ñoom ñoo nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu ay góor lañ woon ak ay jigéen yoo xam ni dañoo toppoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba am ngërëmam fii ci àddina waaye ñu toppoon seen borom ba am ngërëmam ci àddina kon laa sakkali jamono ji jaxasoo ju mel ni sunu jot ji ak soppeeku gu mag gi am ci nit ñi ak sori gi ñu sori njubal yàlla ak ab yonenteem yooyu ay sabab la ak yeneen yu war a mën a tax ñu toog di waxtaane dundu saxaaba yooyu su ko defee loola dafay dolli ak ngëm ñeel ñu waaye dafay dolli jub ak jubal ci ko ñeel tey ñu ngi ànd ak jigéen ju mag ci jigéen ñooñee nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ak yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu koy wax umm waraqata bint alxaaris umm waraqata bint alxaaris kon gis ngeen ni yonente bi alayhi salaatu wassalaam ni mu amee woon ay góor yu ànd ak moom noonu la amee woon ay jigéen yu ànd ak moom yu gëm yàlla góor yooyu ak jigéen yooyu amu ci kenn koo xam ne yaa ngi doon góorgóorlu si wiiw lu dul borom bi subhaanahu wa taala dana la fay ba wis la ca la gënoon jëf waxtaanee dundu saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina ci jigéen ña dina am solo lool ci jamono bi ñu toll xam ngeen ni mbokk yi lislaam dafa yëkkati jigéen yëkkati gu kawe yëkkati ko xam ni amul benn diine ci diine yi bi jiitu woon amul benn société ci société yi bi jiitu woon yoo xam ne jox nga jigéen gëdd bu doy ni bi ko lislaam jox loolu moom amut weren ndax am gis ngeen ci ay aayaat yu bari ak ay xadis yàlla di soññi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ormal jigéen ak koom gis ngeen ay mbir yu bari yoo xam daf doon am waram bi subhanahu wa taala jëri ko fi lu ko mel ni jigéen bu fekkeen borom këram dafa faatu woon te yenn xeet ya bu dee arab yi ceddo ya ñoom dañ naan la koy denc ak ngay denc te bu nekk rakkam bëggee takk dafay jël morso bu xonq rek sànni sa kaw bopp mu jeex amul bëgg nga amul gàñ nga l'islam moo fi jëlee loolu bu dee ci Inde ya ak ñu mel ni ñoom bu sa jëkkër faatoo bu ñu koy lakk ñoom dañuy lakk néew dañuy boole néew bi ak yow mii di dund boole lakk ndax sa jëkkër faatu na xamatul loo muy def yow da ngaa umu war nga fay jóge ñu rafaataale la loolu boo ko toppee di la indi ay melokaan yu sibu yoo xam ne société yu njëkk yi dañ ko doon def islam moo ko jëlee tey bu ñu demee ba wax ni góor ñaar jigéen benn ci miraas ay nit di ko xeer di wax ni dañoo war a yemale góor ak jigéen ñooñu dañoo fàttali jigéen mu dara mënul am dara bay am ngeen bu njëkkoon nit bu fekkee baayam dafa mas a faatu góor yi ñoo doon teddoo alal ji bu dee benn góor la mu jël ko jigéen mu musul xalaat di doon jigéen bi mu daane bi dañ koy kat ñu suul ko suñu borom moo ko teere wa ida al mawqudatu suilat bi ayi dambin qutilat
ak yeneen ak yeneen ak yeneen
soo ñëwee ci alquran suñu borom mi ngi soññi borom kër yi wa aashiruhunna bil maaruf da ngeen nekk ak jigéen ñi nekkin wu rafet fa in karihtumuhunna su ngeen leen bañee kat fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi khayran kasira amaan na nga bañ ko bañ naa ko wàcc wala nga far ko wàcc fekk sa teraangay àddina ci takkum soxna foofu la ko yàlla nar a jaarale léeg-léeg nga gis nit ndeysaan mën naa yàqula ci bunt bi lay jaar yonent yàlla bi ne ne maa akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa lahim doo fekk kuy teral jigéen lu dul ku tedd fa yàlla lay doon doo fekk kuy toroxal jigéen lu dul ku doyadi fa yàlla lay doon yonent yàlla bi soññe ne ku am ñaari doom yu jigéen yar leen sonn ci yar ba defar leen ba ñu mën a sëy nga may leen ñoom ñooy dox sa diggante sàddu sama allahu akbar benn saxaaba ne ko ba ci benn mu ne ko waawaaw ba ci benn loolu boobu toppoon di nga indi ay njàngale yu bari yoo xam ne yonente bi alayhi salaam benn ba te jamonoom xam ngeen ne islam maye na jigéen bu defanee ci yar yi te yar ñu sol ko islam dem na ba yonente bi saxam di tere góor ñu sol sol seen sol jigéen ñi ñëw nañ ci kër yonente bi ni ko góor ñaa ngi ñuy sonal ci biir kër gi dañ ñuy dóor yonente yàlla bi yéeg ci kaw minbar bi mer ba ba di xonk mu ne ay jigéen ci xeetu Muhammad wër nañ ñëw ci man nee nañ seeni borom kër dañ leen di góor yëg leen di góor ñoo ne nekkuñ góor ñi gën ci xeet bi daal di wàcc dem yoonam te geste bu mel nii saa bu ko yent bi defee rek saxaaba yi dañuy am seen ndax dañuy xam ne tey def nañ lu ko merloo saxaaba yi doon dóor seen soxna yëpp arrêté jigéen ñi commencé bajantu nag bajantu bi la ko waral mooy léegi xam nañ ni la sañatoo maa dóor ndax maadaama yonent bi wax na ci rek léegi bu ma bu ma defoon dooma dóor ci ginnaaw bi ci la yéen fa salam doog a jàngale ñu kan lañ leen a dóor ak nuñ leen di dóoree dañ koo gaañ dañ koo dóor ci kanam dañ war a ko xabbee ah bul bul ayibal bul wax safaan ila axiri yii boo ko boolee bokk ay xeeti teraanga la yoo xam ni moo tax ahlu siyar boo delloo ci seen téere yi fa ñu tarjamaalee góor ñi fa lañ tarjamaalee jigéen ñi soo delloo ci al isaaba fi tamyiid sahaba lil xaafid ibn xajar nga xam ne dictionnaire la boo xam ne saxaaba boo bëgg a xam ma nga fa dama ne jigéen boo bëgg a xam ci jigéen saxaaba yi boo ko delloo ma fa loolu lam lay wan mooy cër ba ñu joxoon jigéen ñi ci njàngale am la joxoon góor kon tey yigaan nga kenn ci jigéen ñi jàmbaare yu baax yooyu muy ummu waraqata bint al xaaris nga xam ne bokk na ci mbégte mi ko yonent bi bégaloon alayhi salaatu wasalaam ci ahlu siyar di ko ko tuddal ci fu ne mooy xool yi ci baytik fa inna allaha taala yarzuqu ci shahada yow jarul ngay sonn bu nit ñiy sonn jarul ngay sonn toogal tëggal rek nga xaar yàlla dina la may li nga gën a bëgg muy shahada te shahada moo lay fekk ci ba sa biir kër allahu akbar loolu mbokk yi haadihi manqabatun azima min manaqibi haadihi almarati alfadila li ngëne lu réeréeréy la ci ngëne yi soxna sii nga xamante ni mooy ummi waraqa jihaad ba am shahada muy dee ci yoonu yàlla li mu réyee nga xam ne saxaaba yi dañ doon fekk ko ko fekk ngir génn wuti ko yonent bi ne ko yow toogal sa kër shahada moo lay fekk ci ba sa biir kër yow sa biir kër la la shahada yi fekk loolu nag incha allah dana leer si naka la ko yonent bi waxee woon ak lan mooy sarax ak fan la mujj moom ndaw sii di ummi waraqa kon tey ñu ngi ànd ak jigéen jooju di ummi waraqa radiyallahu anha muy saxaab baax bu ummi waraqa bint al-Xaaris nga xam ni borom xam-xam yi ahlu siyar dañ koy nekk nit ñi bokk na ci liñ ko xameroon mooy jaalat hammaha hamman waaxida yaani hammal hammul axira moom kat yitteem jëpp yitte àddina ji génn la woon mooy waajal àllaaxiraam ba mu jekk allahu akbar loolu sunu jigéen tey war nañ koo déglu moom benn yitte la amoon ci àddina yitte boobu moom mooy jekkal àllaaxira ba mu jekk ndax kat moom xamoon na ne kuuri ci àddina bi ko ñett nii mi ngi mel ni kuuke kuuke ab taw bu taw ba noppi jiri ndox mi boole ko salte ba di daal daal rek moom jëm ca àll ba bu yàggee ba yegg rek naax saay lay def jeey jeex mu xam ni kon poñetu àddina bi amul solo mu daal di yëg ni nekk nekk am na tasbixatan waxidatan fi saxifati almumin xayrun min addunia wa ma fiha nekk benn sàbbaal boo sàbbaal suñu borom moom ndaw si dëkk bi dafa yëg ni benn sàbbal boo sàbbal suñu borom ci yàlla rek tax benn aaya boo jàng ci alquran ci yàlla rek tax ñaari rakk yoo julli ci yàlla rek tax loolu moo gën a ëpp valeur fa yàlla àdduna yi ci biiram est ce que yëg bi tey mbokk yi jullit ñi am nañ ko ala wajhi al umum est ce que jigéen ñi am nañ ko ala wajhi al xusus tey est ce que jigéen ñi liggéey gi foofu la toll wallahi bu liggéey gi tolloon fii faral yi am ci biir kër yi du amati déedéet du amati du amati li ma ci jublu mooy xam nga mbir jafe-jafe moom laa tax ka mënta ñàkk ci kër waaye am na loo xam ne néew gëm néew xaw tuuti kon kalma kuut xam lu ñàkk lu amut bu fekkoon seen say soxla yi seen mbébét seen bëgg-bëgg lenn rek la mooy nan la ñuy defee bi seen àllaaxira jeeg dama ne kër yi du naqari parce que dafa am yoo xam duñ ko tal ñoom duñ ko tal te lii mooy wér ndax ñiy jéem a roy soxla yu mel nii laa sokkani bariwuñ ay jafe-jafe naqari mu ñoo yonit nag kadalik ndaw si amoon na jàkk ci biir këram amoon na jàkk ci biir këram jaamu sax yàlla bu mat la woon jànkat alquran bu mag la woon man sax nag ñu mën ko waxal loo xamante ni moo ko njëkk a am fi l muslimina jamia mooy mooy jigéen ji njëkk a samp daara bi jàngal alquran umu warama mooy jigéen ji njëkk a samp daara bi jàngal alquran tey lépp jigéen bi jàngale alquran ci ginnaaw ummi warama yagal ni yaa ngi tànk jaar ci tànk ummi warama dama ne bu fekkoon te dañ koy limal lim baax la amuñ benn buñ tudd bu dul bii rek waxata doy na mooy ndaw si njëkk a toog biir këram am fa jàkk yeneen ñu wutal ko nobb ca muy jiite waa këram xadis bi boo demee ci sunan abi daawud cheikh nasrul albani wéral na ko fa te bokk na ci tegtal yi borom xam-xam yi di tegtaloo di war ne kon jigéen mën naa jiite jigéen mën naa jiite loolu am na ci ay tegtal jiite ga nag ay jigéen lay jiite ndax ummi warama anta umma ahla daariha waa këram la doon diine te waa këram ña góor ña bokk ci ndax góor ña lañ jàkk jaaleen wax kon foofu tamit lu ma ta bàyyi xel la ummi warama imaam la woon waaye imaam la woon doon jiite ci ay jigéen kon ummi warama radiallahu anha ci ña njëkk a tuub dugg ci lislaam la bokk borom xam-xam yi dañuy wax ne bi yàlla yónnee yonente bi alayhi salaatu wasalaam màkk commencé leer leer ngay commencé fàq bëgg jëm dëgmal ci madina ummi war a fa bokk na ci jigéen ñi njëkk a tuub dugg ci lislaam ci mag xam ngeen yëf yi nekkee ngir mi takkar naate ba yonent bi digal saxaaba yi di leen gàddaay leen ngeen dem madina ummi war a fa bokk na ci ñu njëkk a gàddaay radiallahu anha bala sax borom xam-xam dañuy wax ni kon day moom dugg na ci mbégte mi ak tagg wi wasaabiquuna al awwaluun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم suñu borom yaa sama jaam yi nga xam ni ñooy ñi njëkkalante woon gaaw dugg ci lislaam te muhaajiroon yaak ansaar ya ak ñi leen topp ci rafetal gu mel noonee yàlla kontaan na ci ñoom ñoom it ñu bég ci li seen borom defal leen suñu borom waajal leen ay aljana yoo xam ni ay taw la lay daw ca suuf ka dëgg dëgg dëgg dañ koy tax dak te wér nañu loolu mooy ngét mu mag moo joxe bi ci allahu akbar ci suratu tawba kon suñu borom subhanahu wa taala nit ci moom nga xamante ni moom la doon jigee ci la ndaw si bokkoon keroog bi nga xamante ni yonente bi alayhi salatu wasalaam gàddaay na nag saxaaba yi gàddaay góor ña dem ñoom ummi salama ñoom ummu ayman ñoom ummu waraqa ñoom ay sa yeex a yegg si jigéen ñi gàddaay góor ñi gàddaay li nga xamante ni jullit ñi yegg si nañ foofu ca madina keroog jullit ñi am nañ mbégte bu rëy mbokk mbégte bu rëy moo xam ne taarix du ko fàtte ndax am yéen a ngi fàttaliku ci histoire bi saxaaba yi saa umma daana yeewu ndax xam ngeen ni ginnaaw bay àttal aqabatil uula ginnaaw bay atul aqabati thaniya yonent bi dafa jaayante ak saxaaba ya ne leen dinaa ñëw madina ah dinaa ñëw madina ñoom barra ibni maaruf ñoom asad ibni zurara ba mu nekk ab lim bu limu nga xam ne ñoo daje woon ak moom sa xaaji guddi ga sa abbas fekkee woon ko nga xam ne booba duuba gudd yonent bi alayhi salatu wasalaam jaayante ak ñoom ñu ne yonent bi lan nga bëgg wax ko te xoolal xoolal mbir mi ñu leen jàngal ay trois heures du matin ci guddi aaji guddi ci dëkk yenkam yenkam nañ daje barab sàngam ngir mu nekk secrètement kenn duñu gis dañu jaayantee ba noppi yonent bi alayhi salaatu wa sahaaba yi ne ko waxal lan nga bëgg yonent bi ñu leen damaa bëgg ngeen aar ma comme ni ngeen aaree seeni soxna ak seeni doom ba ma mën a jot ci li woote suñu borom bi su ngeen ko defee yàlla fay leen aljanna sahaaba yi ni ko dinañ la garanteel ni insha allah ni dinañ la aar nu raw ni ñuy aaree suñuy doom ak suñuy njaboot allahu akbar yonent bi kontaan lool ñu seen kanam bi di beex beex yi di lerbati ndax mbégte sallallahu alayhi wa sallam gannaaw nag ci la yonent bi commencé nag digal gars yi ne leen comme gàddaa leen dem Madina gars yi bi ñu ñëwee Madina fekk na yonent bi yegseegut waaye waa waa ansaar yi ñuy commencé di teertu waa Madina benn par benn te noonu ci la yonent bi gàddaa yoon alayhi salatu salaam ak gaa yooyu nga xamante ni ñoo jiitu woon mun Asad ibni Surara nga xamante ni moo njëkk a jiite jumaa ca Madina ah Asad ibni Surara nga xam ne moo njëkk a jiite jumaa ca Madina booba yonent bi yegseegul sax nag sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñëwee ca ajjuma fekk ko ca la ñuy taalim ci côté Quba mu wàcc ba julli juma daay doog a nag dugg ci fa nga xamante ni moom mooy Madina sallallahu alayhi wa sallam bi mu yegsee jullit ñi am nañ mbégte moo xam ne comme ni ko Anas ibni Malik doon waxee mu ni ñaari bitig yii yoo xam ne dëgg dëgg deesu ko fàtte bis bi yonent bi dugg Madina ak bis bi fàtte nee na bis bi yonent bi dugg Madina sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko leeraay goo xam ni xam ngeen Madina mi ngi tuddoon mi ngi tuddoon Yasrib Yasrib la tuddoon Yasrib moo nekkoon turum dëkk yonent bi yegsee alayhi salaatu wa salaam ci lañ ko tuddi al madinatul munawwara al madinatul munawwara mooy dëkk bu leer bi Madina nag am na ay ngëneel yu bare bare bare bari am na ngëneel yu bare bare bare bare bare bari ba tey jii ba fii may wax ak yow madina bokk na ci dëkkuwaay yi bàq ci dëkkuwaay yi yent bi newoon na wal madinatu xayrun lahum law kaanu yaalamun te di dëgg madina daal moo gën ci gars yi bu fekkoon ne xam nañ dëgg kon madina dëkk bu barkeel la yent yàlla bi daana fëgg baaraamam ca kaw min barbali haadihi tiba dëkk bii mooy tiba mooy dëkk bu teey bi yàlla moo ko garanti mu bokk ci dëkk yi nga xam ne na seex bi dal di ko dugg yonent yàlla bi nee na madina dafay bu bu ma see xam dajjaal ñëwee dana yëngu ñetti yëngu yoo xam ni yëngu bu nekk dafay tane di lay gis nga tey Casablanca ni muy tuddee suuf si yëkkati suuf suuf si fële noonu la madina yëngoo naa fees yeeg yéesa yeeg ñi seen mbir sëtub yëpp mu gëpp leen sànni ci biti même bu ma seex dajjaal ñëwoon nit daw dem dugg ko madina génn waat kooku ma nit ñee génn waat de suuf si ci boppam moo lay tibb sànni yent yàlla bi nee na ni sawar di génnee salte bi nekk ci wen bi ñuul noonu la madina di dàqee salte yeeg naa feex yi allahu akbar moo tax ginnaaw ngëm yàlla ak ragal ko ak sëtu pas-pas faatoo xam ne dara du ko dàq du ko toppee madina bi mu yegsee nag yonent bi alayhi salatu salaam saxaaba yi am mbégte lool suñu war a faax borom xam-xam yi ni bokkoon nañ ci ñi gënoon a fësal seen mbégte kanam bis booba waaye nag la koy gën a wane du mbégteen kese waaye dafa mu laazama yonent bi alayhi salatu jàng ci moom xam ngeen ni saxaaba yu jigéen yi dañoo mu laazama woon yonent bi di jàng ci moom mu laazama ji mooy ñi góor ñi dafa xëyoo ñëw di toog ci ran keppaaram muy jàngale jigéen ñi noonu lañ doon def xal sax nag rob na ci sunna jigéen ñi dem nañ ba mu yàgg ñu andi këyitu kalaame kayitu kalaame gi mooy gis nañ ne li ngay jox ci góor ñi par ay heure moo ëpp jigéen suñu jigéen ñi amuñ fu la dara est ce que loolu suñu jigéen ñi ñu koy def borom xam-xam yi xam ne ni koy def di waaye bariwul de est ce que borom xam-xam suñu jigéen ñi ñu ngi def loolu de li kayitu kalaame te loolu dafa mooy doon nekk nag ndax yéen par heure bi ngeen jox góor ñi moo ëpp waaye est ce que jigéen ñi saxaaba ya dañ ko doon bañee suñu jigéen ñaan koy bañee noonu dem si yéen bi indi kayitu kalaame lu xaw daa jàmm ñu ne ko jàmm la du jàmm lu xew ñu ni ko dañoo seetlu ni heure bi ngay jox góor ñi moo ëpp te ñoom li ñu bëgg ñun moom lañ bëgg su ma bëgg nga di ñu bàyyi xel allahu akbar sallallahu alayka ya rasulallah yonent yàlla bi ñu leen gis tàngam bu jëkkatee boobu moom yéen rek laa koy jagleel ñu dem daje benn barab yonent bi fekk leen fa alayhi salatu wasalaam kon loolu dafay wane firte koo xam ni saxaaba yi jigéen ñi xéroon nañ ko ci xam-xam ak yiw maa al asafi shadid booy xool li ñuy dund tey daanaka la yàlla xam doy na fu mu fu mu war a xam bokkoon na ci ñi gënoon a mulaazama yonente bi alayhi salaatu wasalaam di jàng ci moom bala nag jotaay yu bari yoo xamante ni yonente bi sasalam doon na ko dund doon na ko jàngal daf ko doon fekkee moo tax bokkoon na ci kóolay alquran yi xanaa bu ñu la waxee ni la moom am na jàkk ci këram ni la imam la wala doon jiitu ci këram tegal la ci ne moo njëkk a sos daara bu ma la ci tegalee ni la umm ay man ci boppam ci liñ doon dellu ci moom la garab bi ñuy def ab bi ñuy dajal alquran jam alquran borom xam-xam yi dañuy wax ni bu ñuy lim ñi dajale woon alquran bind ko mokkal ko ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ciy limaale umma wara allahu akbar aw bakrin siddiq ni zayd ibni thabit yow mii wóor naa la lool tànn ko muy dajal alquran loolu waxoon naa ko ci dund abu bakar waaye li ma ciy doole tey mooy mu ni zaydu booy amee aay yu lënt wala booy dellu na nga dem ci ummu waraqata radiallahu anha allahu akbar ci jamono ji moom rek nag moo nekkoon kun doon dellu ci moom ndax fonk bu mu fonkoon téere yàlla bi lii la doon def ran fu mu gis teru gileen lii su tàndarma ak yàq ak ëkk lépp xam ngeen jumtukaay yooyu ci lañ doon bind alquran lii su tàndarma yeeg kooji gileen yeeg ah jar yeeg ila axiri xaw tuuti nag gis waa joo xam mbuba mu weex lay jël daal di koy fas yéene bind alquran bu mu fees benn denc ko lu tax parce que amul woon fi ñu doon bind alquran bu ko defee loola ca lañ doon jàngee te xoolal ñu ko doon mokkal xoolal ñun nañ lay sàmm kor moo bare sa gidan alquran jaa ngi ni ñimm kaamil yaa ngi ni wasar bëgg am bañ am booy ñaanaat sax ñu may la waaye tey xoolal fi ñu sàggane ci alquran loolu ku ñu jàng ko wala ñu mokkal ko faw ñu dajalaatu ay lii ci tàndarmaa ci ay ëkk ci ay yëgat allahu akbar ku ne leer woo xam dafa tàcc leer nañ ñi sax dañ ko doon forca àll ba jógat jógate moom ba ci kër yi ngir bind ci alquran ku mu war a xam dañuy waxe noonu la doon def di dajale di dajale ba ci la dajale li nga xam la ak am ci alquran kon ummi waraqata radiallahu anha bokkoon na ci jigéen ñi nga xam dañoo dajale woon alquran liman ummi waraqa moo nekkoon imaamu këram am na jàkk ci biir këram sahada ga da ko nar a fekk ba ci biir këram bokkoon na ci ñu mokkal alquran njëkk a yore daara di ko jàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw sii da koo ormaaloon ba danañ jug dañ di ko ziyaara ci allahu akbar yaakaar naa ni ñun moom nga xam ni kenn ku ci nekk ci ñun waxuma la dara waaye nga tëdd ba guddi gént yonent bi génn guddi rek nga gis ko rek ci nelaw rek maa ngi yaakaar ni am nga lu rëy a rëy rëy gis yonent bi rek alayhi salaatu wassalaam yéen laa wax nga tëdd ba guddi génn gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu wóor na ni kii nga gis mooy yonent bi te li nga wax waxut ak yow dara dama ne loolu mbokk yi man xamatun azima lii fadilatun min alfadail ngëneel bu rëy rëy rëy la ba kay ba ka law soo xam ne yonent bi da ko doon ziar te yow ci de bu ko doon ziar naan aw ba kar xana osnaan kaay leen dugg ma dem ziar ji umu waraqata radiallahu anha xam ngeen ni su yonent bi bàyyi ak yonent bi nit ni mu chargé woon daaw bi ni mu nekkee ni mu chargé woon ni mu ñàkkee jàpp ah nga xam ne addina bi yëpp moom la ñu soxla ñay xare ñi feebar ñi faatu moo leen war di miraas ñi faatu moo leen war di miraas ñi feebar da leen a war a teer ku am soxla ci moom ngay ñëw jàkka ja amul ñaari imam benn imam la woon moom moo ko doon jiite ajjuma mooy xutba xare da doon dem ay waa këram di feebar ay soxnaam di feebar kenn ku na gàtt xel ku ñàkk xel ku nekk war nga xam ne kii benn ceeb bu may bàyyi muy taxawal am góor kon bu daggee ci ay yitteem ay yoon di ziyaare ji jigéen ju mel nii ak ummu ayman yonent bi daana ko defal moo tax Omar ibn Xattaab daana ànd ak Abu Bakr ginnaaw yonent bi ñu dem di ziyaare ji ummu ayman ñoom it ndax yonent bi daf ko doon defal alayhi salaatu wassalaam kon ummu ayman yonent bi daana ko ziyaare ummu ummu waraqata radiyallahu anha soxal na jële ci Abdurahman ibn Xallaas mu jële ci umu waraqa mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam daana ko ziyaar ci biir këram waaye daf koo defaloon ab noddkat ci biir këram buy nodd noddkat bi di ko noddal ci biir këram xalaat yi mel noonu daana am léeg-léeg nit ki mën naa sori jàkka ah leen xasalam rëddal ko jàkka ca biir këram loolu yonent bi defal na ko ñenn ci ay saxaaba nga xam ni sori bi àgg na ci lool te jàkka jegewu la wa illa nit ci feebar am feebar tànk mënta dem wa illa nit ki nekk koo xamante ni xëy na jigéen la nga xam dem jàkka waru kon am na ay benn benn personne ci saxaaba yu góor yi ak saxaaba yu jigéen ya yoo xam ne yonent bi defaloon na leen lii alayhi salatu wasalaam umu waa sax yonent bi wutal ko nontu kat abdurahman ibni xalaat bi solo xadis bi nee na fa ana raaytu muaddinaha shaykhan kabira mu ni man moom teg naa sama bët te ka solo noddal nga xam ni saabu màggat la woon loolu nag tekkiwul ba léegi comme ni ko nit ñi bëgg daan julliwaale ca kër ga ndax noddal ko ba noppi dem jàkka ja loolu lu mën a nekk la waaye daawul julli ci ginnaaw parce que jigéen di jiite góor xadis bu abi daawud solo na ko ci sunan te it xadis la bu wér ummu waraqat radiallahu anha kon daf daan kontaan lool ci ziyaara gi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam doon na ko ziyaara waaye mu nekkoon koo xam ne daana jàng alquran ci këram daan jiite doon yar tamit nag ndax jigéen ñu mel noonu ummi waraqata aishata ñoom maymuna ñoom ak soxna yonente bi alayhi salaam yenn ci ñoom ak ummu darda ay jigéen lañ yoo xamante ni ñoom seen biir kër lañ doon nekk di jàngal bu yare lu tax loolu parce que ñoom dañoo bokkoon ci jigéen ñi nga xam ni yàlla baaxee woon leen ak góorgóorlu mbokk yi umu warqa radiallahu anha xam ngeen yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ni ñaan nga yàlla shahada di ñaan yàlla shahada yàlla nga dee nga nekk martyr te fekk li nga koy ñaan dëggu na ci yow yàlla dana la ko may même boo dee ci sa kaw lalit yéene bàyyi tax nga am tiyaaba allahu akbar même boo dee ci sa kaw lalit Cheikh Nasrul Albani rahimahullah maa ngi am benn kasatam bu ma doon déglu si ak yële baate kon conférence boo xam ne daf ko doon def defe naa suma juumut yàgg na ci dëkk bi su dul London di feneen mu koy def par téléphone ndax dafa waroon a ñëw mënta ñëw mu am ngaan mu gudd gudd sax mu def ko ci téléphone gars yi di ko dégg bi mu jeexalee bi ko gars yi laaj ni ko lan mooy sa débét dafa ñaan mu ni man li ma bëgg ngeen ñaanal ma ko mooy ma am shahada bu may faat allahu akbar allahu akbar la shakka ne am na shahada ndax dalam faat ci xidmal xadis yonent bi alayhi salatu wasalam loo xam ni fii ba ali nay tukki cheikh nasrul albani moom kenn du ko fàtte kenn du ko fàtte déedéet moom kat aw turam dafa dox comme ni jant doxee àddina xam ngeen jant moom dëkk boo dem xam na jant dëkk boo dem xam na kon siiwee na noonu moom cheikh nasr rahimahullah kon bu ñu wax li mu déggee yonent bi saa sallam yi ñaar jullit ñi naa leen kaay leen dem jihaad ah ummi waraqa dafa tëb ñëw ci kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko bàyyi ma dem xare ji allahu akbar lii boo ko xalaatee ñun ñun ñun góor yi wallahi lii buñ ko xalaatee bu ñu amee jom dañuy rus xoolal kenn ku nekk ci ñun rek lan la yëg ci xolam bu ñu tuddee jihaad da ngay commencé yëg ak tiitaange nga xam ne jihaad moom mooy kaay dee mu jeex te dee nit ñi leen ko ragal ummi waraqa moo daw di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaakaar naa kulluna yatadakkar qissata amr ibn jamuh xam nga doon soox allahu akbar yonent bi ni ko yow toogal yàlla wàcc na la xare mu ne ko déedéet uhibbu ah mu mu ne ko damaa bëgg nii may lagat lagajee sama tànk bii ci biir ci kaw suuf si may lagat lagajee sama tànk loolu ci biir àjjana li gars yi bëgg laa bëgg doom yi di ko forcé yonent bi ne bu leen ko forcé bàyyi leen ko li mu bëgg mu def ko xare ba bu mu demee ci la am sahaada xam ngeen ne Abdullahi ibn Umm Maktum silmaxa bu xamut bu muy jaar bu ko fekk muy xëcc naan damay dem xare lam lay wan mooy mbir yi maanaam nekkatut nekkatut dund jéeg bët jéeg ci nekk xol bi xol bi mbokk yi xol bu ba bu defaroo gis ci mën naa mel nu ne nag nu ne ummi wala xay yonent bi saa sallam ni ko doo def foogal rek yow mu ne ko léegi bàyyi ma ñëw may faj néew may faj ñi feebar nga xam ngeen ni am na jigéen jigéen ñi dañ doon faj waxoon naa leen ndaw si ñuy wax rafida nga xam ne yonent bi da ko wutoon benn xayma ci biir jàkka ja def ko hôpital bu ndaw ci biir jàkka ja moo tax dinaa wax mbokk yi ci buntu jàkka nañu leen jàkka moo nekkoon lépp ci biir ma ne hôpital bi ñuy hospitaliser malade yi sax moo nekkoon biir jàkka ji xam ngeen rafida ba Saad ibn Muaz bi ñu ko jamee jam bu métti ba dagg ci digg ji di di di xëy rek ñetti lool yéen yàlla da ko hospitalisé ci biir jàkka yi ña ko doon faj duñ ay góor rafida moo ko doon faj si yéen tamit ndax mu jege ma pour saa su ma génnee rek mën koo ziyaar nga de gis nga Saad ibn Muaaz jam-jam bi dafa metti woon mettiwaay boo xamante ni dee ca saaka moo ca waroon topp waaye dafa ñaan yàlla mu ne yow suñu borom
yii ma dal ne jam-jam bii yahud yee ma ko teg te bëgguma faatu mukk lu dul da ngaa teral sama xol ci ma gis seen borom kaa ngi doog a dee dafa mel ni ñaan googu moo ko fa bàyyi woon yëpp yaa ngi metti ba jullit ñëpp jaaxle waaye teewul rek ñi ngi fi des di di dugg rek ah ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam génnee yahud ya madina ah gaa yi sàkk Saad ibn Muaaz yow àtte leen keroog ba ñuy jël Saad ibn Muaaz mbaam la war loolaa tax ñu naan la ba yonente yàlla ne xuumu ila sayyidikum du ngeen dem ci seen sang ba ngeen ngeen ba borom xam-xam ci lañuy wuute ndax nit ñoom ñu dugal ko dagal nag dagalu loolu man alaw taxumaa jóg li ma tax a jóg mooy taxoon ñuy jóg mooy jóg pour wàcc ko parce que boobu mënta yéegal mënta wàcc ko woon si mbaam bi ndax booba tànk baa ngi ne si lool ba mu leen àttee mu daal ni nañ leen rey ñoom ñëpp ren yi tabaskee leen ñoom ñëpp ba mu des jigéen ñeeg gone yi yéen ci yàlla bi giñ ñi àtte nga àtte boo xam ni ka ca kaw asamaan sii ma arab loolu la àtte man faate ay fan rek daal ma àggal di faat radiyallahu anhu kon lu mu war a fa bokkoon na ci jigéen ñi nga xam ne doon ñaan am saada yéen sa tam ni ko déedéet yow moom jarul xare ji jarul dem di di di di fajaate mu saada rek nga bëgg mu ne waaw mu ne ko demal toog sa kër saada day ñëw ba sa kër fekk la fa yow ah loolu umu war a fa radiyallahu anha daal di dem ba nga xamante ni mu muy këram moo tax borom xam-xam yi dañuy wax dañ koo tudd ashahida shahida yi te faatoogul sax waaye nag ku martir lañ ko doon wooyee te fekk booba sax faatoogul ndax moom kat dund naag yonente bi alayhi salaatu wa salaam ba yonente bi faatu waaye bi yonente bi faatoo mu am aw tiis lool comme ni ko mbooram saxaaba yi amee woon ndax xam ngeen ni bépp musiba bu waddati ci sa kaw rek mbokk yi boo bëggee mu xëyam fàttalikul musiba ga waddoon ci kaw saxaaba yi ki nga faatule yow yaa ko faatule yaa koy bokk waaye am na ku yëgul ni am na ku faatu moo taxit ma ngay mooy yàlla moom am na koo xam ma ngay kàkku di reetaan ndax yëgul ni am na ku faatu waaye bi yonente bi faatu alayhi salaatu wa salaam waaw mbokk yi keroog si yëpp dafa këpp keroog si yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dafa këpp saxaaba yi taluñu ndekki taluñu añ taluñu reer ñii taxali ko seen sagoo ñii amul tiit woo xam ni mallahu bi nga alim ndaxam koo mën a faatule bëgg gën ko bëgg duubul ba la saxaaba yi bëggoon yonente bi alayhi salatu wasalaam bal sax nag nit da doon yegg càmmañam faatu ndayam faatu baayam faatu ku ne faatu mu muñ ko waaye nag yéen saxalam bu ko dara dal moom la ndaw ko doon wax ah sa ndajaay faatu na mu ne man laajuma kooku sa papa faatu na mu ne laajuma kooku sa papa yonente bi laay laaj alayhi salaam salaam ñu ne ko dara dara jiitu ko mi ngi ñëw mbooloo bi dañ koo jiitu mu ne mbooleem musiba yi bu wàddee ci sama kaw te faatu bi yonente bi bokk si boobu ayam allahu akbar kon loolu li muy wane mooy ñooñu ñu fonkoon lañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam du addina kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu faatoo umu wala xata am naw tiis lool tiis woo xam ni gaar na ko comme ni mu gaaree ñi ci def waaye nag ummi wala ko dafa sax ca la ko yonente bi bàyyi woon alayhi salatu wasalaam saa bu yeewoo rek moom nee na day xaar saa rek ko yonente bi digóon gis nga ñoom dañoo gëmoon waxu yonente bi teeru gëm boo xam ne ndax ñun sax gëmee nañ ñoom loolu ñuy sikk ma xam ne da ngay dee te booy dee dañ lay rey rey lu nit ñu wax ko nit mu gëm xam ngeen Ali ibn Abi Talib ba ko waaji ne danañ la rey danañ la def nangam dani ko kàcc ga da ngay dee da ngay dee la ko wax nii ngay def looy dee nag mu ne ko kàcc nga du ma dee dañ may rey mu ne ko deewu ma dañ may rey si may rey fii la may cor jaaj mu jaar ci sama ngaam yu wàcc deret yi tëltëli suuxat sama sikkin bi allahu akbar kon kon loolu ci koy mën a wax te li muy wax loolu la gëm loolu lay xaar moom loolu la ko yonente boo xam ne yonente bi newoon na al Omar ibn al-Khattab li ngay mujjee naan ci sa dund am soow lay doon ba mu xel sa góob ba mooy jam jam buñ ko jamoon bu baax Ousmane ibn Affan gars yi dinañ ñëw di la summi tubay joo xam ne yàlla moo la ko solal yére boo xam ne xamis boo xam ne suñu borom moo la ko solal bu gars yi dikkee bëgg koo summi bañal même bu la ca dee dee fekk xam ngeen ci bis boobu ci la tudd gént yonent bi alayhi salatu wasalam yonent yàlla naa ko bu la neexee nga ñëw ndogu si fi ñun moo tax bu mu xëyee daa woor parce que gént bi tax na mu woor ci bis boobu ci la faan رضي الله عنهم اجمعين هم ورقه لي نك ci kaw suuf waaye di góorgóorlu ci ay jaamu yàlla ma ngay jiite waa këram ma ngay jàng alquran ak di ko jàngale te comme boobu dinaa ci insisté waat bu xarribu amarra ngir soxna yi ñu xam ni des ginnaaw di jigéen ñi des ginnaaw ci jàng ak jàngale ci jamono ju yàggul ji la waxoon naa leen ko ci ay durus yu weer ak ay muxaadaraat yi aimatu salaf boo jàngee seen dund da ngay gis ñu am ay fóore di leen jàngal ci ay jigéen alxaafid ibne atakir li ko jàngal ci ay jigéen dañuy wax ne mat nañ juróom-ñett fukk sax fas na cheikh al islam ibne taymiya al allaama ibne al qayim alxaafid al suyuti alxaafid ibne xajar bal sax nag ibne xajar am na téere boo xam ne da koo bind ci benn sëriñ bu jigéen bu ko jàngal من قرأت عليها كثيرا من الكتب ونعم الشيخة كانت الله أكبر جندنا شي سقنا كي من فاطمة بنت المنجى التنوخية من جندنا شي ممتيري باي ممتيري باي فن جيجن أمي خم خم باي جند الجور لكو جند تيري باي سبحان الله تيجي أصول أصول الثلاثة مويسوس بقنا جسمي مشاهد تيري يم يوري تيجي بوكو يورن فك جيجن دلوكو جندل تيجي جيجن سبب ah waaye muy jàng naa ci moom téere yu bari waaye sëriñ bu mën a jàngalee ngi waaye gis na ko borom xam-xam yu mag yi dañ daan am ay jigéen Aïcha góor ñi dañ daan sukk Aïcha ne ci ginnaaw yi tamit di leen jàngal miiraam allahu akbar ak yeneen ak yeneen yu lay wan ne jigéen ñi ñu avancé woon lan lan woon ci jàng ak a jàngale xam nga ni ku dem bay jàngal nag moom waxatu mbirum jàng moom tey nag boo ko seetloo dañuy jàpp ne jigéen moom ah kër ga waaj ba mu jeex mbirum jàng moom jël mu see avancé pour nga gis ku góorgóorlu ci wàllu diine ba mën a jàngale lu jafe la waaye umu wala xam daf doon jàngale di yare damaa xamul alauddin ak samarqandi wala kenn ci ñoom téere bi mu taalif téere bu mu taalif moom li mu koy taalif doomam bu jigéen moo doon corrigé muy taalif doomam bu jigéen di corrigé li muy taalif allahu akbar imaamu malik imaamu daaril hijra doomam bu jigéen dana nekk ci néeg bi di déglu ndongo yi bu ñuy tànn di déglu ndongo yi maanaam da doon da doon jàppale baayam ci njàngale loolu lam lay woon mooy jigéen ñi avancé woon nañ trop dafay jeexal xol nag li ñu dund tey ndax da lay wan ne suñu soxla yi tànn nañ trop lool parce que pour la di jigéen ñi amoon démb amuñu ko woon ci jàng ak jàngale ku mu war a nekk ci këram di jàng di jàngale di yar di yare jaamu kat yàlla la woon ku ragal yàlla la woon naafila kat la woon moo doon jiite këram tey nag gis ngeen cër bi mu amoon ci alquran ak ziyaare ko yonent bi doon ziyaara alayhi salaatu wasalaam yonent bi faatu bàyyi ko fu muy dund ba abubakar faatu bàyyi ko fu muy dund ba ci jamono yonent bi alayhi jamono omar ibn alxattaab fekk ndeysaan li am ñaari jaam ci biir këram te lii mooy mooy mooy lu jeexal xol li nag mooy ndekete li ëpp ci li ñuy faral di gis nit ki koy wax comme gën a wóolu lay doon ki koy wax wala ka koy nax waxuma loolu mooy am chaque jour dama ne li ëpp day faral di am ñaari jaam ku góor ak ku jigéen ku mu war a tuub dugg ci lislaam ni leen ñëw leen ñu dëkk maag yéen ma di leen jox ngeen lekk ngeen naan bis bu ma faatoo kenn du leen doon ma gore ngeen allahu akbar di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan di leen jëlal ay yére ñu nekk ci biir këram benn fay waru leen te jàppewu leen àtte jaam ndax dañ leen nekk ngeen sama kër am ngeen liberté ba keroog may faatu waaye su ma faatoo ku ne na def yoonam goreel naa ñooñu yàkkamti faatoom ñaar ñooñu ñoo ko rek moo tax ma ni gis nga la waajo doon wax mu ni ittaqi sharra man ahsanta ilayhi del moytandiku musiba yi ki nga rafetal jële ci moom na moom la borom aljadd bil jidd di wax ah aljadd bil jidd wal xirmaan bil kasal borom téere boobu nee na wala taxurannaka man yabdu bashaasatahu minhum ilayka fa inna summa fi lasam mu ne booy jëflanteeg nit ñi dee def ndànk man ngay rafetal jëme ci nit de mu jële sa ñaaral ay bët bët yi tiiñ nga jàpp ni jàmm la la dencal fekk déedéet butéel gun sol poson ba muy waaj a fees la mu fekkilee ko leen seetlu tey mbokk yi lu bare bare bare bare bare ci nit ñi dafa mel dañuy gaaw fàtte njëkk mbokk yi gaaw fàtte njëkk baaxut gis nga doomu aadama bu la nit defalee njëkk njëkk ba lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg dul ko fàtte al biru lu baax laa yeb laa du ma salaam dama ni waxuma jullit ñi waaye yéefa yi démb yi sax dañ doon sàmm njëkk garab ba Urwa ibn Mas'ud ñëwee di wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah wax ba bëgg a dépassé yonent bi aw bakar jugee fële sutt laa nga gi ni ko hey mu ni ko naa mu ni ko um sus badral laat mu ni ko um sus badral laat ngeen laat moom seen yàlla maanaam mi ngi mel ne daanaka nangam daanu laat boobu aw bakar mer na lu tax mu mer parce que dafa dépassé yonent bi alayhi salaatu wasalaam xawat na suuf tiit ndax kilifa la woon kan moo ko ñemee wax ji um sus badral laat wax lu bon waaye nangamu laata waay xawat na su tiit ci jëf jëfi gerte ni kan moo wax loolu Aboubacar ne ko maa ko wax mu ne ko yow la kan mu ne ko man la Aboubacar Ibrahima la ko xaar mu siggi xool ko ni ko am nga sens defaloon nga ma njëkk ci bi ñuy nekk ay jabe te fàttewuma loolu waaye nag njëkk nga komp ko ba nga waxaat ko loolu ci li ci soxla ñun mooy kon am yéefal am yéefal sax mi ngi sàmm njëkk boo ko defal mbokk yi ana jullit ñi si boobaa maanaam doomu aadama ci boppam ni ko borom bi bindee dafa war di sàmm yekk ixtiram al fadl ak lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti buñ ko fàtte tey nag julli ñi dañoo gaaw a fàtte njekk na isaam da ngay gis nit rafetal jibi ci nit rafetal boo xam ne allahu bi alim mu koy wangeentu ko comme ni mbaam di wangeentoo borom waaye nag dana yëg ni albirru laa yabla moo tax gis nga nag jëflantekat yi kuy jëflante séddal yàlla ci li ngay def na yàlla tax ngay def gis nga bu yàlla taxul ngay def gis buñ la war ngeen da ngay perte ñaari yoon ndax benn ñekk da fayu la ko ñaareel bi moom mooy boo moytul nga wëlbati ko naan diw moo ko goree di ndax mën naa ko defal lii naa ko defal la yàq nga ko laa tukkalu sadaqaatikum bil manni wal adaa yàlla ne sa bu ko yàq bul jël bul jël bul jël kaasab deret di ko sotti sa sa soow bi loolu mooy lan mooy li nga def ci mbaax bañ fàtte ko ba noppi denc ko denc ko bul fàtte njekk bul fàtte njekk gis nga loolu day tee ba ci suñuy doxalin am mbokk am na jafe-jafe ak soxnaam ñu li ci ba dara desul lu dul tax ku jigéen ci wax a wax a wax ba xaabaabal góor gee gis lii moo jàngam wax lu di bon yoo xam ne nopp du ko dégg rek xam ku góor ki ñu ne ko waxal mu ne man de dama koy ñaanal yàlla na yàlla jéggal ko jéggal ma li ma ko xamal ci samaan benn du ma ko tudd insha allah ndax maa ngi fàttali ku njëkk allahu akbar di nga kii ku jigéen kii yaakaar naa ne li wala bi naan bu doon galaat garab war naa seey ndax loolu da di bal bal bu dal xam li ma ko xamal ci lu ñaaw man du ma ci tudd dara ndax damay fàttali ku njëkk aka wax dëgg fàttali ku njëkk aka am solo wala tansawul fadla baynakum moo tax gis nga jëflante yi bokk na ci yëpp ay yàq yu mel nii mooy doomu aadama bu nekk boo doon sàmm ki la defal njëkk ngay rafetal jëme ci moom waaye déedéet bari waa na moo li gaay ibaara bi gaay jëfandikoo mooy sam min kalbaka yakul wax xaj lam suur xaj bi au lieu que mu dem di la gardel bu ñëw ko lekk la yow sam min kalbaka yakul buntu bi nag boo gisee ñu ci insisté mooy dafa bari lu muy am tey ndax ku xool sunu dund ñun jullit ñi ak sama jëflante bu dee am nga seetlu tuuti da nga gis lu mel ni doomu aadama dañoo gaaw a fàtte njëkk man sax damaa xamul dañuy fàtte xaw ma dañuy fàtte fàtte la ndax am am na yoo xam ne doomu aadama dana ko defal nit ci ay xeeti njëkk yoo xam ni ah nit mën ko gaaw a mën a fàtte mukk ko fàtte moo tax lu mu metti metti metti metti doomu aadama ji di fàttaliku njëkk yooya loolu la ko suñu borom digal mooy di fàttali ko ya nga xamante ni mooy ay njëkk ak ay daraam su ko defee ñaar yi ñoo ñaar ñooñu ñoom ñaar ndeysaan ñoo ko préparé bàyyi ko ba xaaji guddi fekk dañoo nekkoon ci biir kër gi ñoom comme ñoom yàkkamte nañoo libéré wu rek xool xoolal ji musiba ku ne la bu ma bu ma la bu ma bu ma gore bu ma faatoo gore nga dina jox ngay lekk dina jox ngay naan yoral la te lépp subhanallah di nga gis nit nga jël yoral ko léppam di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko faj di ko defal lépp ndeysaan comme ni ngeen ci gisee sa Sénégal am na société bi nit ñi dundee dundin bu yaatu la ñëw na société yooyu dem fekk ko fa mën naa wër di la waxal loo xam ne jant bi sax mën na caa baaxee wax ci suuf defe naa yéen a ngi fàttali ko sax nit baax nit baax doomu bàjjen aw bakkar nekk ci biir kër gi aw bakkar nakal ko soxna di ko jox muy lekk di ko jox muy naan jox ko néeg defal ko lépp amul lu muy fayee aw bakkar lu dul ñu tuumaal ay te mu ànd ci law ci law ci loolu mu mer loolu aw bakkar te wax dëgg yàlla wax xalaatu aw bakkar xal bi ni mu tooyee xam ngeen ni mu meree tooñ nañ ko mu génn bagage yi sànni sa nekk ba sa baare foofu yëpp mer aw bakkar mu mer moom ëpp naa gis ak ni mu lewetee ni mu baaxee bu meree rek gis nga musiba suñu borom waaw xam bakar yow looy def nii waay lii lii moom matu ko ni wala yahtali ulul fadli minkum wasaati an yutu lil qurba ah ñi am ay ngëneel am ay doole ñoom dañuy commencé giñ naan dootuñu dimbale seen mbokk yi dara wala yaa ko waay lu tere baale wala yasmaxu yeneen jéggal waay ala tuhibuuna an yaxfira allahu lakum xanaa yéen bëgg leen yàlla baal leen yéen seen bàkkaar subhanallah bokk ko aw bakkat dañ ko tooñ ba suq ci biir këram suñu borom ni ko baalee ndeke moo lay wan ni kon luñ la tooñ tooñ tooñ tooñ warees na laa mën a wax baalee aw bakkat dem yanuwaat bagage yi indi ci biir kër gi subhanallah gis nga ñooñu loolu daf lay wan ne la ñoom kaanu waqaafina li kitaabillah ñoom amuñu ay choix amuñu ay bëgg-bëgg su yàlla kontaan ñu kontaan bu meree ñu mer gis nga suñ meroon te suñ borom kontaan ñoom dañuy bàyyi seen mer fekk su kontaan te suñ borom si saasa waa ji bi meroon moo meddi léegi indi woon ay bagaasam ni ko lu ma doon defal ci teranga tey ma yokk ko ndax man bëgg naa yàlla baal ma samay bàkkaar suñu war a fa radiallahu anha jub jub gaa yi fexe ba laaw ko mbalaan rek dal di ko dabbu paaka ci digg ëttam mu daal biñ ne ko dabbu paaka mu ni janjal waaw ca saal gaaya daw ba ñu dawee bi ñu yeewoo xabaar bi fees madina mel ni dañ ne kenn ci soxna yonent bi faal ndax xam nañ koo xam ne yonent bi da koo ormaaloon mu amoon palaat bi mu di ko ziyaar bi waxtu wu ne saxaaba yi di retraité kenn ku ci nekk di jéem a def ay gëstu ba xam kan la xam nañ ne xabaar woo ay bonkal ne leen kaay dañu ñëw mu ne leen dama leen di sant def leen ay gëstu ku ngeen gis benn palaat buy wane ne jiwoo ko def rek andi leen ko fonkal yooyu génn madina di wër di enquête di enquête dañuy ñiit gaay gis ngeen biñ leen indee keroog Omar ibn Khattab nag dafa def li war ni mer na nag ndax lam def li awwali marra muy njëkk am ci madina ah xam nga lu leen def nii la leen pendre la leen pendre bi ay moo tax borom xam-xam yi ahlu siyar ku mel ni kat ci albidaaya wa nihaaya ak imaamu Zahabi dañuy wax ni ñoom ñoo ñi njëkk a rayee noonu ci madina dañoo def lu mel noonu rek ñu xutba mu solb leen muy pendre leen ci madina muy ñi njëkk a pendre foofu ci madina kon ñii ñooy ñi nga xam ñoo rey umu umu warafa waaye umu warafa nag kon tey dëggu dëggu dëggu na ca moom wax yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy xari fi baytik fa inna allaha yarzuqu bi shahada toogal sa biir kër jëru ngay génn suñu borom dana la wërsëgal shahada kon kooku mooy umu ayman umu warafa radiallahu anha jigéen la woon joo xam ni ku amoon dayoo la ca yéen fa salaam ku amoon dayoo la ca saxaaba ya al tax nag Umar ibn Xattaab ñoom dañ ko doon sàmmal loolu ko yonent doon defal comme diñ ko doon defalee Ummu Ayman mooy jékki-jékki jug ànd mbooloo dem ziyaare ji ki nga xam mooy ndaw soosu radiallahu anha wa ardah kon ñu ngi faatu woon ci jamono Umar ibn Xattaab radiallahu anha wa ardaha wa an jamii saxaaba ñu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiqi fi dunya wal axira هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه